kenn muur bi mooy fii lu may munu cee munu cee rees bëgg ko rek mu gënal lu lépp yaa ko ci man bëgg ko rek mu gënal lu lépp te Xaadimu Rasuul sunu sunu maam Ibrahima ci alxuraan euh, yàlla koo takk bi ko war Ibrahima la si waafaa ci suurat Muhammadu Rasulullahi تنوض خلق ملك وإنك الله على كل خير رشيد وإن علم الرسول سنو ربكم والله أعلم من أخذ سكت الخليل بي boobu sëñ bi di sa laaj yi demee ko ci sa tey sa jumtukaay yi loo ciy bëgg ni nga nangu naa loo ciy bëgg ni rek nangu naa moom Xaadimu Rasuul li mu bind ci ay ay ay xasaay yi nu mu doon lépp génn kàllaama ci alxuraan alxuraan dafa am ay kàllaama kàllaama yi seen tubaab bi nga koy xasaay yëpp xasaay alxuraan lépp alxuraan moo tax mu ne wa maa amadal rasulallaahi wa maa amadal kaamu waaw amul suwaaraa amul balaa lépp

kuréel gu yéen dàgg nañ ko ci mooy kii balaa may yéen maa wala awalaa maa ko maa wala awalaa ma suuf te li ñu wane ne ñetti xibaar yi doo ko am ñaar benn bi nga taxaw ni jéem a xam yàlla te di ko jàpp lu ci te loolu yi du nekk wala awalaa maa ko maa mu nekk ci àdduna bi sàkk wu ñu looy maa moom lay rek maa moom banque ci xaalis ba ca banque maa moom naa. maa moom maa moom xaalis maa moom bâtiment yi wax dëgg taxaw maa ko maa ko awra am ko sàkkul am ko wala nekk nekku ci awra am suba ñuy koy tooy di tooy di tooy say di tooy say loxo di tooy say loxo di tooy say biir di tooy say say di tooy ak alal yi jàmm di tooy awra am suba di tooy rek waaye waaye waaye waaye boo ko waxee nag njëkk njëkk njëkk njëkk taxawaay boo ca taxaw waa ah, xëy na xaar nit yàlla may sàkku moo ko def te yàlla ku sàkkoo la yàlla ko def te ci bàyyi ku naa ko ñun ñëpp ku caa te laa ma yàlla wala am ko mag wala am kon nag bu mu nekkee nekk di sàkk ñu ngi sëriñ Tuubaa man sant yàlla sant yàlla ku wér yàlla na ngeen ko yàlla ko yàlla yal na ko yàlla barkeel yal na yàlla barkeel ñoom yi yal na yàlla barkeel njaboot yal na yàlla wéral yaram yal na yàlla faj aajo yi ak pàcc àllaaxira bu yaay nabi Mustafa yàlla yi kontaan na yonent bi kontaan na malaayika yi kontaan na ñëpp kontaan nañu asalaamaaleykum wa rahmatulah. am na solo neex na parce que yow donc mel na ni kon nga joxoon kàddu gi yàqal rek. mën naa dégloo mbooloo mu waxtaanee Serigne Touba yomb kon bu defee ñu def naa toogaat benn ni sëñ baa ngi jege si bu ko defee yéen jëwriñ yi mag yi bu sëñ bi accès ngeen jël dem teeru ko dalal ko mu toog.